ay xawma ñan ñu dëkkee di ñu jàngal ñoom seenu histoire. Uh-huh. suba ak ngoon guddeeg bëccëg. Uh-huh. ñoom Seydi El Hadji Malick si bàyyi ñas li mu def ci biir bitim réew. Uh-huh. xaadimu rasuul. li mu def ak li mu bind. waa ñin ñu ne ñin duñ ko jàngal suñuy doom ci biir lekool yi. <laughs> école française yi alaaji. Mm. boo bëggee xam daal li li suñ sëriñ si liggéey rek demal nga nu ji seen xasida mm-hmm. teew par le biais école euh, nasaraan bi ñoom ñu ñuy jàngal ñoom yenn jàng yoo xam ne seeni kilifa diine ak seen kilifa aada ak seen kilifa militaire uh-huh. la ñuy dugal di ñu ko jàngal uh-huh. jamonoy Afrique moon Afrique ba léegi ñun Afrique même réew ji Afrique gii mën nañ fee wax mën nañ fee wax tëpp Sénégal yi nga xam ne moo ne woon euh, la capitale de de l'AOF déggoo ma de fii après sow jant fii réew mii moo ne woon capital bi ñu ne ñun daal loolu duñ ko jàngale Sénégal gii daal duñ ñu jàngal li fi nekk ci cosaan ok ñu ne déet ni waaye ñu ne même ñi ñu leen di waxal sax mooy nekk cee doy waaye kilifa diine yi tegu ci siraatal mustaqim duñu leen wax ñoo ñooy ñan mooy gi dañu wax foog ñu tudd leen ñoom dal ay njaay njaay mhm. alburi mhm. la jur ngoone la téer mhm. ñooñu daan laaleeg tubaab bi waaye ñi nga xam ne taxawaayu tubaab bi d'accord ci ñii ñu wax tout tànk yi ñii ñooy ñan bu ñu leen ko jàngal waaw lan moo tax ñun suñ kilifa diine yi Lamine ministère éducation nationale mënul xëy bis livre yi ñuy xëy di ko bind nii ci pro pro ah ah a warul sàkkal programme. ah moo ma jaaxal di. Hmm. Hmm. Hmm. programme ñoo a defar. ah man de jaaxle xam naa ne de. kon suñu cosaan ak suñu aada. man jaaxle naa. ak suñu croyance waaw. ak suñu ngëm waaw waaw dëgg dëgg waaye loolu jaaxalu nit ñi. loo lay tabax. tabax nit da lay defar ak ay jikko. mais citoyen yow ah. say valeur. Ah. mais ka muy tabax. la nga nàmp alaaji. ah moo ah. tax. làkk bi nga nàmp alaaji. làkk bi nga nàmp. boo ci commettre boo ci defee faute. nit ñi bàyyi mu jàll. làkk ba nga nàmpul nag. Mm-hmm. boo ci defee faute. ñu ngàbb la ba def la ci réseaux sociaux yi di la cax-caxee di la ree loo xam ne yow nàmpoo ko loolu complexe la mm-hmm. ndax moom moo ko gis nga les américains du sud la bu ñu demee ay France di football mm-hmm. gis nga bu leen canal di laaj la ballon le bal la rond central <laughs> ma entraîneur <laughs> non wuy ma wuy ma xoolal na ñu wax loo xam ne nit ñi buñ ko déggee dinañ xam ne kii mon entraîneur la bëgg a wax <laughs> ak le rond central la coup d'envoi yu ñoom seen buñ paree xoole yéeg seen oto yu baax dem parce que wala seen i fa palaan ko xam de seen yaay tuddul Jacqueline nii Viviane tudd nekkuñ français léegi nga wax leen nga ne leen làkk woon nàmpul nii boo ci defee faute tey ñu ŋàbb la làkkum olof gii nag mhm. nga jël ñoom Yacine Seck yóbbu leen ci télé bi alaaji mhm. revue des ne leen waxal ma lii waxal ma lii la république secouée par la dossier uh-huh. du pétrole mu ne mu ne la waaye alaaj lii nag mënu ma ko wax ci olof waaye yooyu eh, scandale ci doomu libu uh-huh. doomu libu uh-huh. ndeyam ak bàyyam juddoo ndakaaru yaroo am màggee am mu judd ñetteel leen nga ne ko gën gii ni ñu koy wax ak kuur gii mu naa la lu moxtier lu moxtier pilon nga ne ko gën lii laa wax lii wax ma ko ci olof mu ne ah waaye Ahmed lii damaa xam nañ ko wax ci olof loolu tamit tubaab yi moom nañ ñu rek. non yab nañ ñu. sa ko papa nga ko tonton. yab nañ ñu yab nañ ñu kooku bàyyi tëx la. yab nañ ñu yab nañ ñu. l'école ba daal na yem ca l'école ba boo leen ci biir kër gi nag ñu doxal suñu cosaan suñuy aada en tout cas suñu kilifa diine yi de war nañ leen gën a fonk de laaj. Mm-hmm. Mm-hmm. kii la wax du li ma la wax du dañ. <laughs> suñ ko xamuñu sàcc. laay xamuñu sàcc léegi. ndaw si alaaji ñun pétrole xam nga lu ñu doon booleeg moom temps xale ñuy boyal wala làmp lampe pétrole temps xale yaa ñun xamuñu pétrole te mënoo leen fexe ba baa géejawaay xam pétrole waaw képp ku fi wax na ci turu géejawaay yow la engagé mais ñin lañu wax sàcc amul suñu koñ xamuñu luy sàcc pétrole ci tubaab yi dong lañ koy dégg xamuñu ko kuñ fa tudd it xamal ne danga faa rax waaye dëkkoo fa ñu dem léegi dëkk bi na ko ëlbatiku fu waaye neex rek daggatee rek ma yombee noonu de. Mm, mm, yomb. Mm, <laughs> ah, leer nañ ba mel ni midi. doon bañal Karim moom. duñ ko fi nangul kenn. kooku kay moom ko mënul ne sax léegi alaaji tës bi tey. ndaw si danu ko may borom kër. moom ndaw si waaw. Mm-hmm. ah nee na daal waaye daal waa ji nag ñaan na ko baat mooy li mu ci doon wax keroog. Mm-hmm. ba sonn waa ji bañ. ne ko nag du la ko may. waaw te li tax nag mu bëgg a bàyyi mooy euh, waaw lam soxla daal ci waa ji daal ci góor. Euh, waaw waa ji daal ngóoram daal mu ñëwul. mu ni waaw noonu la ko olof di waxee ñëwul waaw ngóor ngóoru ji daal moo ñëwul. moom ndaw si sax ñu ngi koy expliqué daal dañuy daal waa ji daal. sama jëkkër la waaye dara daraam daal daa taxawul. Ah, appareil bee baaxul. waaw kay waay. ndeysaan ndeysaan daraam daal alaaji taxawul. léegi nag. Uh-huh. fune dem na fa. ndeysaan. daa sës. waa ji nag nee na ko nag la yiwi. ah ndaw si ci boppam nee na nag moom ah, ay lekk ki naan rek taxul mu jugee kër ndeyam ndax. moom jotoon naa am borom kër. Mm-hmm. kon xam na li ci góor. loolu la ko nee na ko mm-hmm. nekkul yow rek laa mës xam ni góor. Mm-hmm. waaw kon man xam naa li ci góor. te te te yow euh, sam ngóora. Euh, dafa daa daa daa des. waaw léegi nag na ko yiwi waaye coow li mooy waa ji ci boppam alaaj nee na ko yiwiwu ko nag loolu nag xaw ma lu ci solution nee naa ko nag toogal naxante waaw naxante ndax doo toog faju mu ne waa ji nee na ko du faju parce que feebaru <laughs> waaw ah, ah, alaaji waa ji ma ne ko penalty ak defal ndànk waa ji waa mën na wax dëgg de alaaji de <laughs> ah ah alaaji bii match moom ku koy arbitre mooy lan loolu penalty la de ah. waaw mbaa boobu match ku koy arbitré loolu ah. penalty la. loolu du coup franc te du corner. waa ji waa ji feebarul kon lu lu ko daal. non. waay dafa fa waa ji nee na ko feebar. ndaw si nee na ko da ngaa feebar. lu ko daal oh, oh. ndax man nekkul ne ci yow laay doogee xam góor. kon xam naa li cim góor. mu ne ko nag man feebaruma. am nañu bant. waaye tamit nag après bu doxul nu ñuy amee bi doxul. noo non non non non. attends waa ji mën na yëg boppam. waa ji mën na am dëgg laaj daayir nañ ko ndaw si sax laaj. ndax waa mi ngi yëg boppam mu ne ah xaw ma ndax mi ngi yëg boppam. ah ndax man nekkuma moom waaye man daal yëguma sama bopp. ah ndaw si itam moo xam dama koy. Ah, laaj na mu teel de. Ah, non non non naa ko déglu ba eh, noppi de non attends alaaji li wax naa mën na nekk. <laughs> waa ji mën na dem ba yëg boppam. mais waa ji boppam dana ko yëg. déedéet waaye man de sama yoon nekku ci. Ah, de. affaire yu yëgante yooyu sama yoon nekku ci. waa ji waa ji mën na mën na yëg boppam. gisoo ñu ci tataay alaaji léegi-léeg ñu nekk di riisu kenn ba ba ba ba yëg seen bopp te ndeysaan ki ngay riisu moom. ñooñu seen appareil dafa dox. yii doxlewul dama ne la lii du corner bu eh, franc penalty la tegal selon la dame. non mais loolu mën na ne alaaji. foo ñu déglu mami. Ah, non alaaji mami. Eh. yow mën mën nañu la ëpp. waaw moom non et moom mbokkam la moom nee na moom ay affaire kii yooyu yëpp moom moom taxul mu nekk fa ay affaire bi bien ak ay non. moom kay li ko fa baax mooy. mais ñàkk dox gi dysfonctionnement bi ci nan la. laaj tegal Chimère am façon de. Chimère. mais mais mais après war nga ci jël xam xam ma ci wàllu diine moom ci wàllu diine. diine ah parce que bu dee da du ko fase te fekk affaire doxul tam ah, doxul mën naa leen loolu moom. loolu moom dépense quotidienne la léegi. góor ñi nga xam dañu am problème ak jigéen lànk ni duñu leen fase du ma la fase finalité di métital. du la fase du ma la ngi bëgg a nekk phénomène nag. te loolu. moo je pense mbokk yi jigéen ñi mbokk jigéen ñi ñoo ñàkk fayda mm. ah mais ultimatum laa lay jox tel date bu jotee bu jotee ñu dem tribunal boole ci accéléré ko bu fekkee amuloon kayit wuy tax ñu dem tribunal tel date bu ñu fa yeggee l'islam da koy tas man bu dee sama rakk dama koy may keneen yàlla xam na ko góor ñi alaaj nañu duñu yàlla alaaj nañ déglu ndaw si si maire dama yàlla def mu gaañu ñu gaañoo nag ñu ma yor ak njaboot léegi xale yi dem jàngi ñu ne ma comme dangay toog dañ lay jox boroom kër beneen ndax jigéen mënul toog rek bañ a am boroom kër ah ma déggal samay kilifa ma ni daal di koy jël mu léegi nag man xaw ma lu ci nekk dañ may kilifa ma ci dugal bi ma tabiski jee ma dem ma ànd ak moom waaye daal li mbiram góor daal mooy problème nekkul góor te léegi doo fa feebar waa feebar wérul ma ne ko ma joteeg moom ma ne ko ah yow de sëñ bi wéroo mënu ma bul yàq sama dem dara jotuma ma ne ko wéroo ndax man góor la ci yow jaaruma ci yow kese maa ngi ni dóor soog a ja si yow yaay ñaareel bu góor kon lu góor mer war naa ko mën a xam mënu ma bul sama der dara jotuma ma ne ko ah léegi daal man comme mooy li gëdd gàtt nañ ko yemale fii balaa kenn di ko yëg mënu ma du ma la du ma la may baat tey du ma la baat suba ma dem ci waajuróom wax ko ko waajuróom na ma bul yàq sama deru doom dara jotu ko man ka ah, comme loolu ngay wax baax na man tamit man comme dama yàq sa der bàyyil ma dem. man ma wax léegi man ak daal doy na li nit ñi man mënoo ko te doo ma fi tey dama ameel àq man bàyyi ma léegi ma dem mënu ma du ma la baax. xanaa ay mbokk ngeen. ay mbokk lañ waa ay doomi ndey lañ. Mhm. ay mbokk doomi lañ ndax yaayam ak sama yaay ay doomi ndey lañ. léegi nag ma wax ko mu a ma duma la ba ci yow neexoo bàyyi comme yu neexoo bàyyi nag dama lay téye rek di la téye ma ne ko nag doo ma fi téye dama xooññal daaw daaw ba léegi maa ngay topp nag nag man na jeex may ma baat ndax man mënuma fee toog di am leeg yàlla te xale bu ndaw laa damaa toll ci war a soxla sama bopp te duma loo fi teg di fi bàyyi buum gi gàcce di ma fekk ëllëg te loolu duma ko def may ma baat munub duma la may baat yow daal sa problème ak mm, feebar la mm-hmm. te ba pare ko wérul nanguwul faju te xam na da koo wér judduwaale. amul fajoo wala daa bañ mm, mu fajoo xëy na mu ngi faju tax waaye amul lu mu fajoo tamit ndax am wàcce na ñaari soxna mu wàccee naan man xawma ma si woon dara dañ mu ko dóor rek. ñaari ñaari soxna moo tax xam naa ne loolu moo tax ñu dem. Mhm. waaw ndax waxuñ lu ci nekk daal waaye moom lëram moo tax man nag man mi magam jëm wax xam wax naa ko si sutura na ma bàyyi ci yàlla tax rek ndax doyal naa comme wérut la toogi daal ba wérut ndax wérut len benn yoon lañ ko mën a seq waaye wérut ba dëgg batu yàlla bi yëpp tabiski bi ma takkee ma dem fa waaye wérut ndax li war ci góor la war a dem ci góor yëpp amu ko hmm. dara jógut ci moom kon wérut dara dara dafa feebar dafa feebar ma hmm. loolu la aw du yëg nag du hmm. yëg dara boo làmbee doo daj dara mu nooy nag léegi nag. mu yaa dul yëg dara waaye moom dina yëg dara ci yow moo tax mu ne du la bàyyi wala. Ah, waaw na moom waaye man moom doo gis dara ci moom la war ca góor boo ko teyee doo gis dara. Mm-hmm. waaw léegi nag. léegi nag yow say mbokk lu ñu wax. samay mbokk wax naa leen mun ñoo waxtaan ak moom rek bul yàq deram ma ne ko aywan kay di yàq deram paasewut mooy wax ak naa moom ci biir nekk si sutura mu mënoon maa bàyyi nag ci sutura. ana ko ma ko nga fa waaye wax naa leen wax na ñu waxtaan ak ñoom mu ne nee na li mu lay wax rek la ñu wax man wéeru dara jotuma duma la duma ko mën a bàyyi. te ba léegi mayu la baat. daaw ba léegi ba tabiski ren mi ngi bëgg a ñëw. yéen man maa ngi dakaar fii tabiski daaw laa ñëw fii dakaar maa ngi daan sama doole. ba léegi nii maa ngi koy woo chaque jour bu ma ko wooyee sax du ma jël nee na bu soobee yàlla du naa la fi téye xoñ ñi ñal la ba sa xol tàng te duma la ba ma ne ko nag dinaa wuti ndimbal ak noo ko moo ma ko mën a bàyyee di ma bàyyi ci nii. te loolu rek rek bëgg dem ma tax ma bëgg dem. li nekkul góor nekkul góor wérut. te du ma du ma fi toog gone laa du fi toog di am léegi yàlla. du fi tëyee sëy bu dee lekk yooyu am na bu dee lekk am naa sama kër baay am dinañ naan am na sama kër baay. luy war ci góor am ah am naa ko ndax maa ngi nii di sant yàlla daan sama doole. boole koog nag waaw wérul wérut daal waaw wérul daal man nag kon wérul xanaa demoo ca chef de village ba wala délégué de quartier wala kilifa yi ne ca koñ ba imam baag yooyu mm, déedéet dew ma ci ñooñ moom dew ma ci ñooñ moom demoo ca ñoom waaye mbokk yi daal ndax mbokk yi dem naa fi yëpp dem naa ci ay yaayam dem naa ci papaam dafa gaañu hmm. dem naa ci magi papaam kii ma takk si woon hmm. ak sama papa ak ki ma kiñ ma bàyyile woon ñëpp dox nañ gis nañ mbir mi yëg nañ mbir mi hmm. waaye moom doo leen waxee rek lam leen di tontu ak lim may tontu du bokk man nag na ma ñaanal rek te yàlla tax. te yow fi mu ne nii amoo beneen solution. ah amoo beneen solution. sax ma toog te muñ xam na loolu la yàlla na toog. Ah, de loolu du xale bu ndaw laax bëggum am léegi yàlla boobu laay bañ. Ah, waaw loolu yàlla. moom daal day ah, mu dem seeti leneen ma seeti leneen man nit am yàlla lay bañ bëgguma def lenn lu neexut yàlla. d'accord d'accord loolu dong. d'accord. loolu moo fi indi woon jërëjëf dama leen di déglu saa ne nag. jërëjëf jërëjëf yow Alima Ndio nag. d'accord merci ay dara Aidara sant naa la gërëm naa mais lii pourtant lii day war naa mën a neexal lijjanti de wala mënoon neexul lijjanti. kay. miir miir sëy. sëy sëy aussi tamit ñaara koy séq de. wala eh. alaaji neex neex du donk loolu mooy un na ko bàyyi. <laughs> deuxièmement. de alaaji pourtant mën na koo bañ a bàyyi sax di liggéey. refus d'impuissance ngay am foofu. dina ko bàyyi de alaaji ndax waa ji bàyyi na ñaar. waaw non waaw waaw mais dara boobu waaye ñaar tam loolu raison moo war ko bàyyi. ah waxan kay. ah kay. non non dama ne dama ne. Mm. solution bi kay alaaji. Mm. mu mbokk yi dem faje waa ji. waa ji nee na moom feebarul moom. waa ji tamit. waaj ji tamit ah, mën na bañ a feebar de. waa feebar na de. mën na bañ feebar di nee na moom feebarul. magum jëmm ji wax waaw mais tamit feebar na de. non magum jëmm ji wax kay waxam rek ngay mën a gëm. tawat na de. <laughs> tawat na de. waaye bu feebarul kii léegi li ko dal ni yow noo ko tudde kii nee na ma ak a bëri say kaala. ndax ndax ndax ndaw si. ndaw si euh, laajtewul lu spécial. waaw déedéet déedéet. ah, ah waaye li mu laajte tam. li mu laajtoo spécial nag. li mu laajte alaaji mooy kër bi. <laughs> non c'est-à-dire li wax mooy. loolu alaaji ah. du spécial cib sëy wax dëgg yàlla laajul spécial weer wi de moom laaju ko jant li mu ah. laaj mooy li mënut a ñàkk cib sëy la tax ñuy mooy ah, jant ak weer loolu fu mu amul spécial non non loolu du spécial ma parce que loolu fu mu amul sëy du fa am non non non wuy ma la jiitu cëm sëy lu jiitu ci sëy moom laaj cëm sëy laaju la spécial moom la ko laaj lu jiitu ci sëy xanaa xam nga balaa dépense bi ñëw sax lii dikk man moo tax mu spécial bi bëri ngay joxe dix mille francs wala quinze mille par jour moo tax mu spécial la wax waa Mhm. wat ubbi mo wanakasa wat ubbi moo njëkk mooy li nga wax kawalal bi waaw da ngay nekk góor pire di ko satisfaire ah. ba après ngay joxe dépense muy nabi ah, ko daay la kii bii waaw ah. sukk naa dëkkuwaay bi donc xam ngeen kon comme bii bii daa am solo yow tamit ne ma bii mooy numéro un moo tax man la spécial moo tax bu fa amul nag spécial manqué na foofu gis nga waaj <laughs> waaj waaw waaw ji waaw gis nga nuroo waaja sax waaw <laughs> kay waaw gi. gis nga waaw waaw nii ah gis waaja du waaw ah, kay waay. waaw waaw kat jii nag mooy jigéen bi gis nga ko. waaw waaw waaw. yi nga gis ni gis nga ko nii. Ah, waaw mooy nuroo waaja. gis nga ko gis nga ko xam na ko. Euh, mën ngay joxe dépense vingt mille francs par jour alaaji. million par jour dégg waaye lëf lee bu doxulee lee ca kanam ne mu dox. dara du dox de. lu mu wax rek ba ba ba bàyyi ci xel. yow tamit islam. xoolal. xool ko. <laughs> tamit. ndaw si li mu laaj alaaji mooy ci ñeenti ponkum sëy yii. Ah. bu njëkk ba la laaj. waaw. Ah, bu njëkk ba. xam nga da bu ne woon. Ah, dépense bi motul damay ñibbi. ñu ko kon yow kii alal nga ko topp. Mm-hmm. daay la sama yére daa yu ba tey ñoo fi ñe. ñu ah. ne la muñal. muñal ndax bis mën naa dikk léeg lii waaye lii est-ce que xale bu jigéen boo xam ne xale la xaw maa ko doon laaj gis naa ko est-ce que mën na koo muñ ñaata yoo nga fi dajale ay junni jox ko nit walaay mu dem këram waaw jële bu tës muy dépense jërëjëf ah. euh, ñaata lañ fi dajale ay jox ko ah, nit mu dem solo ba doyal ba doyal waaw dëgg wutal lañ fi nit location fay ñaata yoo lañ fayal nit location dëgg la dëgg la waaye bii de boo ko jéemee xam ah déet hmm. boobu nag moom ko mën a kenn <laughs> na tas jëm bi non lii moom lii mooy appareil boo xam ne day dox rek wala du dox. bii mais alaaji waa ji mën naa bañ a feebar de. bu nekkee pan dañ koy faj. waa ji dañ koy ubbil suñ micro ba mu ñëw mun naa bañ a feebar. daa feebar de hmm. déedéet alaaji. Hmm. alaaji. xëj na ndaw si tam ca ku góor ka mu juge. ah kooku tamit. mën na nekk rek xëy loolu tamit xalaat naa ko. loolu tamit ah, mën na nekk mais lu tax waa ji bàyyi ñaar. mën na nekk laata moom. waaw mais sëy bakkan la. mais nag ndaw si dafa joxe ay tegtal. ci appareil bi. waaw kay. ay tegtal yu leer ci appareil bi attention. nee na. ci ay waxam moom. doo da dara. waaw kay. waaw nooy du du yëngatu. comme comme comme bu ñu poncé. Ah, ah. waaw lool loolu sa pose problème. daf daf daf na daraam jugul. waaw loolu nag donc ça pose waaye ji day bëgg naa koo jàppale ngir mu sooyu mariage bi de waaye day ah il faut ñu dem ci kër docteur yàllaaj góor daal coof yow ko bëriwu ko xaalis dawalu koy kat kat yaa ngi dégg yorokul lu ci àdduna lu dul jeex compte bancaire bu fees tànk appareil bi doxul doo dara bàyyi la nga wax ah yow tamit yàlla xam na ko yàlla xam na ko non moom sàmb bi <laughs> alaaj hmm? moom sàmb la fa de <laughs> nee na góor coofewu ko dawalee wu ko kat kat hmm. yor ay millions yu dul ah. Ah. Mm, sama waa ji sama waa ah. <laughs> luñ dul nettali luñ wax. bilaay yàlla jàmbaar gaa ngir yéegi feneen waaw waaw xam nga sénégalais alaaj ah dañoo tàmm. diw lan lay doyee diw. <laughs> waaye yow gis nga mami Samb yow. mais mm-hmm. yow kun kii kii kii kon kii lay sëyal. waaw mm-hmm. mami lan lay doyee kii. Mm-hmm. ah di ko mami di doy. te nga ko bàyyi ak mami rek. bàyyil mami ak góoram yow kii yorul léegi-léeg nga dégg sax yenn maire yi naan wuy ma góor lu yettul hmm. yorul hmm. kii seen waa kër ko baale hmm. sama miis bi topp ko rek yor na de waa kii moom ah cam fekk lam yor <laughs> ah lool loolu loolu loolu loolooy neexal kër alaaji te loolu loolooy bàyyi jeeg ja ca kër xam nga tey waa ji alaaji lu mu mënoon di jox ndaw si déggoo ndaw si nee na la maa ngi daan doole xam nga ndaw si kon ñëw fi pour dóor wala pour wut xaalis bëggul dara déggoo de dane ah, namu ko maa ngi daan doole sama kër bàyyi ña ngay lekk. Mhm. ma ne ko te ay yëreeg lépp yaa ngi ak mu ne ma xanaa gisoo ma. Ah maa ngi yëre. sañse waaw. waaye nag la tax ñu naan sëy moo fa newul. wallaahi waaja daram daa taxawul. wallaahi ndeysaan te nag. léegi nag ah nit mënu ko ko nit nit ko koo de. Hmm. lii lii nii muy laaj nii alaaj eh. nit mënu ko koo bañ a. d'autant plus que da koo xam sax. waaw ah. ko boo xamul sax ñu ne waaw. Ah. non loolu xamee. yooyu xanaa xamu alaaji. Hmm. Hmm. bokkoon na ci li ñu saxtal bu ñu toogee ci jàkk ba la ñoo fas sëy hmm. ñu daalante ko mbokki ku jigéen ki laaj mbokki ku góor ki ne ko ndax ki ñuy may jabar. góor la am déet. ndax jullit la. alaaji dañoo bàyyi cosaan daal ndax waaw ndax ndax ndax ndax dina liggéey ndax nangu naa liggéey ak yooyu yooyu yooyu. yooyu alaaj dañ koo sàggane. waaw ni koy laajee ci ku jigéen ki. waaw ba xam ëmbalu alaaj. ok ba xam nekkul ci idd. idd waaw yooyu yëpp dañ koy laajte ci jàkk ji. Hmm. ci xale bu jigéen bi ñu maye. Hmm. waaw. ok lay dëgg la tubay daal kenn du ko takkub ceinture dañ dañ koy ñoor dëgg la. kii li li sang bi daan wax moo si doon am sëñ Moustapha Sy. Hmm. mu ni ndaw si daa daa toog jëkkër ji rek. toog bu yàgg mu xàqtaay. jëkk ji ni quoi yow looy looy yore mun kaa damaa la ñuy dem ti ah, ku dëkkee sant yàlla ak ah, ku dëkkee muñ hmm. ñoom ñaar ñëpp ku ne jëf ja ko yàlla hmm? ko luy loolu ah. damaa xam ni man ni ma mel ci ab taar ak ni ma mel xool ma tubaakal la ku ma xool bëgguma yàlla xéewale ma la bëgguma ku dul yow ci yow ci sant yàlla nga dëkk wante yow ni nga mel nga baal ma ñaaw nga ñaaway boo xam ni salte nga tilim nga mel nga noo xam ni tubaakal la jigéen ju mel ni man dëkkee nekk ak yow ci muñ la rek yéen ku dëkkee muñ nag ak ku dëkkee <laughs> ak ku dëkkee sant bu ñu dee àjjana la ñuy dem waa xam nañu daa ñaaw xam nañu sangu ba demelu noonu waa ji day xotti darab daa tànk ya daa xar alaaji du <laughs> muñ rek waaye waaye eh. mais nag muñ nag alaaji waaye coow li coow li bu fekkoon te woon ni muñ gaat sant gaag yëpp alaaji ah, ah, ah. bu fekkoon wat ubbi kii day kii bu doon waa bu doon waaw bu doon waajane wu fa alaaji billaahi ndaw sa day loolu de léeg-léeg mbokk ne la bàyyil diw nga ne du ma ko baax mm, mm, mm, ba tey du ma ko sax lañ war a bàyyi du ma ko baax ginnaaw suba bàyyi leen diw wala tasal la moo tasal lañ war a baax nañ bàyyi ñii hmm. jigéen nag bu demee ba ne bëggatul wala ku góor ku dem ba ne bëggatul ñu ne ak ñaar ñiy dénkante ñoo xam nag maanaam Eh, lay màtt seen diggalal loolu moom ñoo ko xam ba kenn ki bëgg a daw waa ji tamit bu dee moo def war amul droit tey kii otage gisub nit naan ko tasal ah. sa waa ji loo koy doyee ah. salte na xeeñ na du laal parfum li muy sol ñaaw na bi jaxasoo sa yoon nekku ci wala sa jabar jii nga xam ne gars yi day sëcc day nangam sàngam sa yoon nekku ci ah, sa yoon da mu ne la man daal neexul ba neexul waaye kumba laa bëgg bàyyil kumba kumbam maa ko bëgg. ah bàyyil ma kumba kumbaam. ah waaw kay waay waaw kay. la ca kumba. ku nekk ak bosam ma kumba ka xam. la ca kumba ba ma topp kumba. kumba xam la ci ma kumba ma kumba xam la ci kumba. ah waaw kay waaw kay li tax ma kumba topp kumba ak kumbaam. ah ah laay ma kumba ko xam. la tax ma kumba topp kumba ak kumbaam. ah, ah. ma kumba ko xam. bàyyi jàmbur ak kumbaam. ku nekk ak sa bos de. naax na ku nekk yi dañoo ñëw wala tey circulation bi moom amul problème. tey est-ce que am na problème. alors érage. état bi keroog bi eh, eh, tës bi jeexee. Hmm. Eh, waa am na benn direction bu nekk affaire étrangère ñoom daal nee nañ leen def seen ka kattan ngir. Hmm. néew bi daal mën a ñëw mooy xaadim sow xale boobu. te mu faatu Maroc la de waaw kay. waaye yaayam tam ni ngi mu ngi ñaan wallu ci ñi nga xam ne dañu ngay ubbi ay compte orange mu nekk di récupérer xaalis ci turu xale bi. Hmm. te bokk moom yaay ji ci boppam loolu wax na ko. Ansoumère bu ko jege woon sax ñu tekku gaa yi dégg yaayu go gone gi xam naa ne li wax sax bariwul de Choumer ah. waaye waaye daal xam naa ne daal yaay ji daal. li def. ah. li hmm? ñu bàyyi li yaay ji wax na de. nit mënut a mbir mi jegewu la. yaayu xaarim saw bi jegewu la. ah wax noonu bariwul sax. Ah, waaw waaw. yaa ji day alaaji. Uh-huh. ah man de sénégalais alaaji ñu dëgër fit. ñu dëgër fit. sëë të të a waaw ana yaa ji. asalaamaaleykum Ahmed Aidara man na soxna Adel di yaay Xaadim Saw. nit ñiy woyaan ci sama turu doom laa bëgg ñu bàyyi ko. ministre bi jël na ko en charge bu dee xaalis la. man yaayam ak ay samay mbokk ak mbokki baayam ñëpp kenn soxlawul dërëmu kenn wayaanuñu kenn dërëm dama bëgg nga waxal ma ko ci rajo bi ndax marok ko yëpp ñi ngi yàq sama tur ak sama turu rakk ne dañuy wayaan damaa nga dimbali ma ci sa rajo bi nga wax ko ko nga ne ko ay mbokki baayam taxaw nañ mbokki ndayam taxaw nañ ñu soxlawuñu dërëm ñun ay ministre bi nee dina ko jël à charge bu ci yàlla amee koor kese laa soxla soxlawuma dërëmu kenn fukki dërëm kanamu kenn soxlawu ma ko. waaw kay waaw kay. pour ñi nga xam ne maanaam danoo nekkoon ci réseau yi. ok ubbi ay compte ok nit ñi di leen fa yónnee seen dix mille ñii quinze mille ñi vingt mille. ñii cent mille pour koor bi ñëw. waaw li naan tungu ni lu teew ñuy nataal ndeyu gone gi ci boppam alaaji moo ne. ñoom ñëwuñu fi pour xaalis. waaw nag la mbir mi yam waaw. lu leer la wax de. Ah, waaw léegi ndaw si doon wax léegi tës alaaji day day dem wala day toog ci sëy bi. waaye day dem day dem day dem. ah day ah, may baatam mu dem eh, tamit. non non non non defal ndànk defal ndànk. sëy dagan na bàyyante dagan. waaw waaw mais alaaji waa ji bu wéree tamit. waa ji wérul. waaw non mais mais attends mais bu ñu jàppee ne daf feebar nekkul feebar boo xamante ne alaaji dañ ko ne doo wér. bokkul ak fa feebar yi tubaab bi bind ci kayit. mais faju jiwul yàlla dogal ci ne lii du wér. mais faju jiwul. waaw mais d'accord raison de plus nag léegi est-ce que ndaw si waruñu koo xelal mu jàppale borom këram mu faju jàppale kooku bu tolloon ci jàppale du ñëw tës allo mais nañ laaj nit ñi nga xam ndaw si dafa war a dem wala dafa war a toog a laaj ah, wala ah, waa ji boog na faju ji bu nangoo faju ji daal ndaw si mën na toog xaar ko mu faju moom itam waaw ah, mais est-ce que ndaw bu nanguwut a faju nanguwul ne dafa feebar waaw mais mais ndaw si tam est-ce que waru gunge borom këram tamit mu faju gunge ba ci fa ah ku feebar rek dañ la dañ la fay ba dafa war a dem. aller sans retour yooyu porte gore yooyu moo fi jeex yooyu amatul la. ah déedéet déet defal ndànk nag defal ndànk. su dee waa ji dafa dafa feebar alaaj. mais na faju. jabaram gunge ko mu faju. na antaame faju waaw kay bu dee nangu na faju. ah allo. bismillah. ah. waa Baye Sall 88 628 89 90. ngeen bës. waa Baye Sall. yaa ngi xoyom xoyom yi fu mu ne nii yaa ngi mel ni chips. allo. Saliou damay laajte ni. yaa ngi mel ni ndaw ndaw si. ndaw si kat boroom këram dafa oh, feebar daal ndaw si nee na du yëg boppam dara ca kaw lal ba te wax na jëkkër ji ne ko fase ma ba sonn waa ji bañ te moom xale la. Hmm. te bu dee lekk ak naan am na kër ndeyam ak bàyyam. Uh-huh. bu dee tamit ay yéreeg yooyu am na fa fu ñu dëkk am na fa. Uh-huh. la ko indi ca biir kër ga nag sëy li tax ñu naan si dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw kay lal ba te eh, léegi nag li may laaj man nit ñi mooy ndaw si dafa war a toog muñ gungee borom këram ba mu faju wa ilaa ndax na dem ñii ne man dafa war a dem day dem na dem de <laughs> waaye Saliou xule li ngay war a rafetul de ah. ah, loolu mooy indi lu ne non non non loolu mooy indi kii day nekk jëkkëram ba noppi bu ko neexee mu doxantu ji dëgg la. déedéet dama ne. dégg naa la de waaw jëkkër daa feebar. waaw dafa na faju bu ko ah bu fajoo du wér. lii nekkul feebar boo xamante ne nii. dafa faju sax parce que moom nanguwul nanguwul feebaram. moom nanguwul ne dafa feebar bi. nee moom dara jotu ko. finalement muy ndaw si nag léegi. ba pare ne ko doo dem doo buuse. dootuma la may baat. waaw mais <laughs> ndax yow neexoo bàyyi tasal ci force tasal. Ah. non non déedéet te toog di ko xaar. allo. day ah laa àndal de. non bàyyi doomu jàmm yi ñu torturé léegi de loolu phénomène bu bees la. mënatul leen a sëy ci jàmm. da koy wàcc ku nekk dem. waaye duma la may baat dootul man ak yow waaye duma la may baat fii laa lay téye tardel la. pour lan pour lan loolu pour lan. dëggal moo di rek. non futur maire moom yërmande gi lay jiital moom xol bee leen ko kay mënatu leen a nekk nekk mënatu. Modou Ndiaye nee na ma ndaw si na dem. mais eh, dem. mais ba mu waree dem moo yàgg. daa yàgg. Uh-huh. dem na sax bëgg na dem bu yàgg de mu ngi nakaaw di liggéey waa ji moo ni ko du ma may baat. danseuse rek moo tax mu ñëw ba fii. léegi nag i faut mu am benn waay bu am doole bu mel ni Socé Fall ñëw takk ko toog di xaar waa ji rek. ndaw si moom kay mënu ko takk te te sëy bi dañ. si sëy bi dañ sëy dafa am façon dafa am façon dañ dañuy jàkkaarloo ma ak yow nga ni ma may man la may naa la. wala tribunal génne kayit ni tas na. wala ñu ñëw ni la hey. kii may ko nga ni doo ko may ñu ni d'accord en tout cas le 30 juin bu jotee. Mhm. amatoo jabar. Mhm. bu fekkee du yoon moo ko doxal yow nanguwoo kii diine dong la ñuy doxal le 30 juin amatoo jabar. le 30 juin am ponkal mu toll soosi faa lay takk li xëf toog di la xaar. mën a mbëkkee mbëkku ngi si. Ah, ay ay waay nga ah, ah, dem de waaw léegi waaw moom nee feebaru. Eh. ah feebaru dafa woo. est-ce que est-ce que ne moom li muy joxe la ndaw si xeeb. ndaw si ne naa la dafa joxe description yu leer ci machine bi arrêté loolu. non non non ndaw nee na nee na. mën naa ne nag am na ñoo xam ne prime dib la. Ah? nga ni. ok a dégg rek. Baado ay bonne nuit lañ. tëdd yàlla yàlla doole am na nag. Lamine Gueye nee na yaa dee bonne nuit de. ah professeur nee na mu dem waaye yaay ni muy def kon nag. ah waaw ah, mais mais loolu. mais na waa ji nangoo faju looluy dëgg. Eh, waaye nag nit ñi dugg dimbali ma ngir yàlla xool ba xam ndaw si day dem wala du dem Simeer Diop. nangoo faju allo. kon na ko yóbbu ci yoon boobu. allo tribunal doo ko fa tas ko. Eh, waaye sénégalais yi wax leen waaye laa laay la laa 88 628 89 90 ngeen bës 1 bu ma amee ñaari nit rek ma àtte. waaw sa eh kooku dañ koy ñaanal bu wér Saliou Khoule. Saliou Khoule. ah macha allah waaw dëgg la dëgg la allo dafa ñaari nit rek laa bëgg a jël. Ah. <laughs> muy boo xamante ne nii gars yi ndey. waxal ci kitoo bi allo allo. oui oui salaamaaleykum. waaleykum salaam wa daal daa gàtt day dem wala mu toog. waaw di kii c'est dama bëgg a wax ne am na góor ñu bëri ñoo tax seen jabar di di njaaloo. Hmm. kon yow pour yow ndaw si dafa war a dem. ah mais comme que waa ji nangu dafa ju. Hmm. waaw comme ko fa téye di ko di ko sonal. wax ah, dëgg yàlla. dëgg la. na keneen dëgg yàlla wax dëgg yàlla majorité bi na am ndam sama kaw rek yàlla oh. ah sama yaay nee mu dem Amsatou Sow Sidibé la xanaa waaw nu mu non non nu ma def ngeen def ñoo ngi nii sant yàlla bu wér waay yaar nañ leen bu baax ah, dem waay dem euh, waay bon ñu ngi leb tur bi di jël waaw kooku waaye dañu yaakaar ni oui moom ba mu demee xam nga nit ki nga dëkkal am na noo koy approché noo koy abordé ba li nga koy wax dina ko déglu xam ni yow mii da nga ñëw pour taxawu ko waaw ñoom yàlla da leen a boole ñuy sëy waaw mu am lu ko dal jàpp naa ne am na nu mu doon joogee su waxtaanee moom ndànk. waaw waaye dina wax ak moom kooku dina sentir ni lii lu mu war a def te da ko ci accompagner boobaa mais demal faju ji. Mhm. dafay mel ni am na écart demal faju te ñëwaat man ma génn sama loxo. d'accord waxtaan wa dee waa ji wax. alaaji mhm. kii daa mel ni maa ngi moom gis-gis. allo bi. est-ce que waxtaan amul. allo ah, si am na allo allo allo daal man daal jaaxle naa tey. <laughs> allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaleykum salaam Ahmed na def. waaw maa ngi sant yàlla bu wér. man la El maa ngi wootee met ah? bon ci kaawu ndaw si. waaw waaw waaw. laa bëggoon ñëw. waaw kay bisimilah. Euh, na ndaw si ku gore la. Mm-hmm. ah bon. dëgg la de. waaw parce que parce que lii mami di wax rek. bànneex fu mu amul. Mm-hmm. benn. première nuit bu mu paasee euh, jëkkër ji. Mm-hmm. mu xam ni jëkkër ji dafa feebar. bu doon dafa dugg ci sëy bi feebar bi dab ko ñu ne jëkk jabar ji war na mën a muñ loolu. waaw kay waaw fa la ko fekk. waaw te ña ko may ak ñaari soxna ya mu bàyyi est-ce que am naa ñoom doom. déedéet. Hmm. kon ñoom dañoo am seen benn fesu mbalit rek bu ko buux fenn pour mu laaxatu fa. ndaw si du ko nangu ndax xale la. xel day xalaat ni day dëgguwaay. waaye xel day xalaat te dëgguwaay. gis nga nit dafay raisonnable gis mbubu. bu jékku bu ko solal keneen. ay na waxtaan ak waa ji ci. waxtaan la suturaal. Ah, xamuñu ah, waxtaan def nañu lépp. Ah, moom ci boppam xam na ne doxul. na ko gunge bu doxul la seet yoon bu waaw mais bu doxul tamit la koy doxal lañ ci réew mi. waaw na faju na faju ànd ak jëkkëram ji. mais na faju mais nanguwul ni tawat na. moom nanguwu ko ay mbokkam nanguwuñu ko. waaw pour waaw non loolu yëpp waxtaan la. mami Samb bañ na ko ba ba ba yëkkate. ma eh, maasu yëreem bi waxtaan. la ilaha yow dama lay expliquer rek man xam nga sama genre gii tamit. allo. allo allo. waaw salaamaaleykum Ahmed. waaleykum ah mënoo jël piscine def ko sa kër piscine. doo ci sangu te kenn du ci sangu balaa tàng nga ci piscine bi dër ko. dëgg la waay waay waay waay commando waxal déwén waay commando waxal déwén waay. dafa ah, waxal ah, déwén waay. ba pare li gën a jox mbokkam. mbokkam waaw hmm. ah, waaw mbokkam jàmbur hmm. nëbb li nga xam ne moom moo ko dal. te kii nekk xale bu ndaw bëgg am doom bëgg ëllëg avenir am am takkandeer. Ah, mm. jigéen jigéen buy bu ne da nga bëgg takkandeer. Mm. takkandeer waay. ah yow yow nga tey ganaar yu neex. togg mm. lépp teg. te su de pare écarte say loxo écarte say tànk. doo dugal sa loxo te kenn dugal loxo. ah dafa sa dafa sa jinjeer. boo doo sa lu gàtt xëy sa lu neex. jërëjëf ok ok commando d'accord. waaye commando waxal déwén waay. waaye yow keneen ku mel ni commando na dugg. non tey tey daanu naa allo. sëy ba dañ ko woon tas. tey daanu naa allo. tey tey daan naa. waxal alaay. Ah? alaay tey assemblée amul tey tey minoritaire allo allo allo oui allo allo. alaay tey daan non daan naa tey aw ma majorité allo. commandant oui. Ahmed. oui. na def ba yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax kooku. waaw mais ziar ziaral ma Mansour. wallaay ñu ngi lay dégg ñu ngi lay bu baax. waaw mais Ahmed gis nga la dame. Euh, nit euh, jigéen bu am sutura la. Mhm. daa sonn daa mujj sonn. waaw parce que dem na wax ak seen euh, waa ji. waxanteeg waajur waa ji. Mhm. Mhm. dem waxanteeg moom ci lépp ci sutura. ñëw tamit ba ci yow tamit nag yow tamit lépp tamit ci sutura. donc góor nag moo am foo xam ne ne boo fa tolloo. ak jigéen waaw waaw ak ak jigéen. nga xam ne ne ñoom ñooy suñu yaay ñooy suñuy sœur. boo fekk ne affaire bi demee na ba toll nii. Mhm. bàyyi ko rek ak yàlla. Mhm. ku nekk dem wuti leneen. Mhm. parce que bu fekkee ne yeewu ko. fekk jigéen ki bëggul def dara lu bon. donc c'est de la méchanceté. c'est vrai ah, dëgg la. Euh, c'est vrai wallaay dëgg la wallaay dëgg la wallaay dëgg la mais nag alaay góor góor itam war nañuy bàyyi yenn saa yi mm-hmm. du ma la fasade maanaam du dootuma la jëfandikoo nga wax waaye yow it kenn du la jëfandikoo bëgg la ko ñaas rek téye la ci waaye loolu boo leen demee tribunal alaaji mm-hmm. tribunal dina ko tas te boo leen toogee ci diine tamit mm-hmm. amul benn diine bu nangu góor di jël jigéen otage amul amul amul bu ngeen demee tribunal siis ba la naan yow fi nga ko téye ci poñ nooñ ko ñaas ko foofu pour la. lan la waaw dëgg la dëgg non yéen ñi a góor nag da koo moomul di alaaj di dëgg dëgg. tabaski daaw ba tabaski jigéen ñi tam di def yenn góor yi de bu ñu la jekkoo ba ngeen dañ lay wommi ba yóbbuwaale karo ya ñu ne déet waaye chaque fin de ñu teg la loo xamante ni yow sa dund ca lay yàqoo. jaaduwul. waaw jaaduwul. jaaduwul gis nga sëy alaaji am na ñoo xam ne divorcé nañ ak seen jabar mhm. ba ñooñu amaat jëkkër mhm. ñu fay dem di seeti seeni doom seen doom yi di ñëw ci uh-huh. seen kër ñaanal uh-huh. papa ji rafet rafet uh-huh. dara yàqu ci te te nekkuñ sax ay mbokk de waxoon duma la ak ñoo xam ne nag alaaji ay ay mbokk lañu sey moom bakkan la waaw waaw am na foo xam ni alaaji alaa kulli àllin tàggatoo day am boo sëyee góor gi lu tolloog juróom benn fukki at góor gi xëy dee tàggatoo am na waaw dem na wala yow nga dee dem nga tàggatoo am na tàggatoo moom ala kulli àll day am ci kaw suuf ñun ñi ñëpp yàlla na yéex mais bis a ngi dikk danañu tàggatoo day am waaw danañu tàggatoo waa kaw suuf dem feneen leer la waaw waaw waaye nag yow sëy bi nga ne dee du tas ah. dinaa la fi takk ah. taañaañal la poñañal la ah. dootoo sëy piscine bi duma ci sangu waaye kenn dootu ci sango commando commando wax dëgg la nee na mais raax ko dër ko dër ko kay dër ko mu bokk ci kër gi léegi dafay gaare sa oto. sangu sanguwoo kenn sanguwul. Ah. sanguwoo te kenn du sangu. jigéen sangu ba set. Ah. ubbi tànk mag loxoom. Ah. tegi gànnaaram. nga ne nga ne du dem kenn du dem. ba jinjeer ko. mais attends. nañ bàyyi nañ bàyyi ak ñoo xam ne dañuy jàpp seen. alaaji soxna yi lekk seen ginaar yi ba pare bëgg fa. imaam yi imaam yi doo ko fi nelawee. imaam yi xutba sëy am nañ ci part de responsabilité. bu bala ngay mayeeti jigéen. laajal mbokki ku góor ki ni leen est-ce que moom mu ngi jógal. waaw kay ndax ngeen boogul galaasam de. loolu wax bi wax bi day day naqari xëy na ci dégg-dégg. waaw mais diine noonu la. Eh, mais loolu mooy dëgg sax loolu mooy dëgg sax. waaw mais alaaj ah, ah. ah, xale yi sax léegi man ni ma gis façon bi ñuy def nii. waaw mais dafa bien que d'accord ma waaye léegi xale yi dañuy testé. waaw mais alaaj defal ndànk ma expliqué la alaaj. xëy na kay soxna yaadul teew ca jàkka ja rek. ñuy wax seen ginnaaw. waaye soxna soxna bi ñuy maye. xale bu jigéen bi. dañuy sampi laaj. waaw mbaa ëmbul. waaw imaam bi da koy laajte de. mbaa nekkul ci buum nekkul ci buum am na ñoo gisoo bigamie. ñoo xam ne tës fii dafay am. ñaari jëkkër ñaari jëkkër am na di. parce que boobu xëj na laaj waa xóotul woon ca mm-hmm. jàkka ja mm-hmm. wala ñi koy maye ñoo waxul dëgg nit ña waaye bu ñu waxoon ne ah ma nga ca buum kat. waaye borom këram kat dañoo jote woon lii ak lii ñun nag dañ koy maye par force imaam ba dana reculer. dina moo tax bu ñuy maye sax aji ñaari nit yi ñuy dañu war a toog ci jàkk ji looloy dëgg. mais loolu sax dafa war a am alaaji. mais looloy dëgg bu dee yéen a bokkoon. pourtant l'islam prévoir lépp bu ñu mayee ku musta am jëkkër muy bikra. na ko jëkkër na way juram maye al waliyu. nekk ci sëy boobu. mais bu dee ko xam sayb la koo xam mus naa sëy caga ku fi nekk ab caga ko xam nga olof caga boo ko fi waxee Sénégal réew mi toj mais caga mooy ku sëy ba ba ba kii man naa ànd ko caga ab jeex ñëw ni ko alaaji xutbaal ñu waaw waaw alaaj jàng fatiha salaatul fatiha sëy ba dagan waaw waaw parce que ñun ñaar la ay mos ko jox ko can gi sëy ñoom ñaar ñi naa leen a may ñi sëy ci biir kër gi dañ leen waroon seppi tegal ma leen fii ci réseaux sociaux ma may léegi ci àjjuma ci hmm. point waaw parce que boobu li ci li ci li ci avantage mooy dañuy dañuy épargne ñëpp ci bu amee ay procédures yeneen ëllëg l'islam ni kon jël seen propre responsabilité mayante seen bopp ñoom mën naa nekk ndax ku nekkee assumer responsabilité muskalaf mu ngeen a mayante léegi xam nga ñoom ñaar ñi sax nag ñoom seen tas mënoon naa yomb dëgg la ndax góor ki fase na ñaar ah, ah, ku jigéen ki génn na ci sëy waaw kay ay muskalaf lañu ki sëy ba noppi nag alaaji neexatu la nax ci lal wax dëgg yàlla waaye jamono jii ñi sëyul sax neexatuñoo ndax cib lal waxuma nag ku sëy ku sëy ba noppi ku sëy ba noppi mënoo ko ndax cib lal man day man day jàkka ji. jàkka ji li tax man ñuy laaj jigéen gi ndax lii yëpp dalu ko te duñ laaj ku góor ndax góor ñaa fa toog. góor ñaa fa toog ndax lan nag. góor ñaa fa toog góor dañuy wax dañu xaw a gis nag ñun nag gis nga gis nga alaaj eh, te benn diine nag waxul ne bu ñuy maye waaw ji mais yow même suñ jàkka yi alaaj jigéen ñi dañu dem di julli ju naan leen waaye yow ana jigéen ak jàkka ja ni mu waanee mais góor ni muy demee ca jàkka ja ak jumaa ja alaaji jigéen noonu la war a jàppee solo ba set ànd ak gars yi nii ci eh waxuma par ajjuma de ma ñun suñu jigéen ñi moom koor ak naafi la ak ajjuma nga leen di gis sax ñuy rëcc naan dañuy jëm jàkk ni góor ñiy demee ca jàkka ja suba teel tisbaar ne tàkkusaan timis ak gee noonu la borom musóor yi wala jàgg-jàggee dem ba ca jàkka ja man de sàppe sàppe ñetteel ba ca Kaaba ga sax ma fekk ay jigéen ñuy julli man ne damaa xamul doxle woo sax looy takkum jabar waaw wax ji yëpp foofu la ah. waaw <laughs> ah, bu la jàppee. waaw waaw waaw ah. non mais mais mais Alaaji. dëgg la um sëy. mais bopp la. ñun ay góor lañ. la. mbirum conscience la. Uh-huh. yow sa reer bu neexulee. wala fanaanu woo dépense. Uh. wala yaag madam ngeen laale. Uh. boo tëddee. Alaaji. Uh. na nga war a mel. ci nguur. doo ko mel. déedéet bopp bi la. waa d'accord mais boobu xanaa dafa fekk amul facteur déclencheur. de dama ne facteur déclencheur lu la ndaw si déclenché déclenché mais ndaw sa la war a déclenché ndaw sa la war a déclenché. bu fekkee mu woddul la nag. dóor ah, ñetti baa. fooy déclenché ñaari jiin ak benn kilo ndax jote ngeen. déedéet ci moment bu ngeen bëgg jote laa bëgg wax. fu a déclenché war ngaa war ngaa déclenché wu. déglul ma expliqué la. du tàkk. cartouche ba kay bu jugee daan tis ma ne cartouche ba. cartos ba du ne bum de. tos tos lay lo loolu lay dëgg alaaji. ah du tàkk du tàkk rajo yi dañ leen war di. ci jàngal ñi. génn nañ ci koor gi. te ñu wàccee ci capitale Sénégal. Eh. jiitu réew mi de fi mu nii. am na ay dossiers yu ko doy. ay yéen tës yéen. pétrole baa ngi nii koor gi jeex na tës ñëwati. bu jëloon Basal boo jëloon réew mi yëpp sotti ci pétrole ba mu tooy ak gaz. <laughs> ah xam na ne bu amul almet ku yóbbu dox si soxla. wallaahi tous du tàkk du mu ngi di ma ko wax nee almet bu tooy du tàkk. dëgg la non sottil essence ak gaz. ak pétrole. na jax defal lu la neex. waaye du tàkk laay bu fa safara. waaye nag bu facteur déclencheur bi kiiwee fekk ngeen war a jot wala daa tàkk. Ah non dama ne facteur déclencheur rek facteur. déclencheur non xam nga stress yooyu xam c'est-à-dire que loolu nekk lu yàgg du durée bu yàgg. ci instant T bi la xanaa. yow déglul déglul déglul damay jàpp rek yow yow li ñuy sëy sëyoo ko déglul rek. damaa mos waaye déglul rek yow xamoo li jëm sëy. waaye déglu rek waaye déglu déglu rek gis nga alaaji. alaaji gis nga mami Samb nii. alaaji alaaji bu ma traversé ah, rek dama lay traversé. dama lay traversé ba jéggi la déglu rek. yow bàyyi ko da nga dàq léegi déglu ma yow <laughs> yaa ak Saliou Khoule xamoo leen li ci mu sëy mm-hmm. yaa ngi ñuy traversé. dégg yow xamoo li cim sëy te bu ñuy weranteem sëy. mu dugg ci ba dépassé. ci ah. déglu rek. <laughs> déglu rek. yow li ñuy wax xamoo ay élément déclenché rek. dama ne man kay li ma la wax dafa leer. yow ku góor ki mën nga ñëw stressé alaaji. dépasse baa ngi fi. dégg nga jotee woog madame. fekk na timis mu ngi tàmbali di la waajal. ay bagages am sew. yooyu noonu yëpp. kooku. nga ñëw indi stress fa nga doon réunion wala sa service. xam nga li ma la ah xëj na euh, bu la déclenché xëj na nga dikk. waaye dama ne la dama ne la. bu fekkee nga laale laa wax alaaji ak madam wala dépense newu fi tey. te yaa ngi tëdd te boo yeewu suba teel madame tàllal la loxo. Mhm. daf ci yoo xam ne déclenché ko yombul mooy pétrole boo jël sotti cim réew ba mu ne xepp ak gaz. Mhm. te amul almet ak briquet du tàkk. du tàkk du tàkk du tàkk. elle a beau essayer de déclencher l'élément mm-hmm. mais l'élément moom reste tëdd rek mm-hmm. ah ah kay mm-hmm. ah. xanaa déggoon ndaw si li mu wax léegi nii non taxawal kii moom pétrole ou pas pétrole kii dadul dul tàkk du ah, kii moom da dul tàkk ah, moom. déggoo leen nee na waa ji dina yëg boppam. dina yëg boppam. mais moom. sa li mu foog mais nag alaaji confirmé wul de. dañuy xëy na waaw da koo dafa ne xëy na da yëg boppam. ah dana yëg ah, dana yëg dana yëg boppam dana xëy na déedéet amul xëy na bu dee ñoom ñaan séq nañ ko nee na tabaski daaw lañ ko gëj a séq bañ ko séqee séq nañ ko séq nañ ko ba waaji ci boppam kii man de waaw <laughs> ni rël eh, ba àdduna sosoo ba léegi ku ñu musaa bay Saliou ku ñu musaa may séet nga tële ci kanamam parce que jamaa sa jamaale la takk xala waaw yooyu cosaan la waaw waaw yooyu cosaan la te mu ngi am ba léegi léegi mhm. awo yi ñooy takk xala seen jëkkër yi bu ñu takkee see bu bees waaw waaw kon xala mu ngi am ba léegi mhm. mhm. léegi bu ñu mayee bu ñuy mayee eh, yi bëgg a yooyu parce que xob yu guré yi doon ànd ca peñe ba ñu koy muule ko ko sagar am yuñ ci <laughs> de bu ko defee waaja Abdoulaye Ndiaye naan ñi rek fii ak morso baa ngay tooy du taxaw waaw mais it am na lu ñuy defit nag ba nga xam ni morceau boobee tooy ñàkk tooy dootul tenir compte considération ca waaja. Ah waaw ci mii na ma wàcc tamit man bu ñu lay may soxna nii. waaw fi nekk nii yow Baye Baye Sall sa mbubb mu guddi mi nga sol nii. waaw doo jiital dara da ngay sol sa mbubb mu ni pëcc. daal di lang noonu rek. mooy tul mu nekk lindam yelu tungu ni alaaji mooy fit mooy fit gu jam te jamul ci kaw dara ci ngelaw lay lay dëgg la doo daaneel kenn. dëgg la takk xale yooyu dafa am. dëgg la dëgg la waaye fanaa ne hoo hoo rek ñi ñi yaakaar ne yaa ngi ci. li koy la nga man. woote ni tey moom wa taxaw sëy laa bañoon mu ne tas ne tasar te sëy bi tasul de. sëy bi dina tas looloo fi indi ndaw si de sey bi tasul de tas bi. na ko wàcc. Ah, déedéet nee na ah. day ah, ah en tout cas tojagul de. sëy wa day toj sëy sëy wa na faju. mën day lii xaw ma luy doon solution bi tey. faju ba mu toog ah, rajax. ah a solution. ah Ahmed solution laa waaye dossier bi dafa xaw a dépassé de dossier bi comme pétrole. waaw gars yi ah, nañu wax wa nañu wax waa ji ni ko muñal te bàyyi ndaw nañu bàyyi lu na parce que réew mi. Ah. ma ne eh, eh, ma gis nga Baye Saliou alaaji ngi nii moo jël si. waaw ndaw si tilimul. waaw xayadiwul. fii laa ko ñaawul. gàttul xale la sooful. dafa xees moo xanaa déggoo waa ji nee na ko neexoo bàyyi. waaw duma la bàyyi ndax neexoo bàyyi. carrément la ko ko xalaat ah. jekk na présentable la ndaw si dafa mel ni tàngal bant. léegi nag xale bu ndaw. ñu may la xale bu ndaw alaaji mel ni kii nga doon jël sànq. man dama koo séen nii rek ci weer yi bi kii. daa njool sax. waaw mm. kooku nag ku ñu ko këfin mu këfin la ñoñal la jinjeexal la. nii la yow mi doo waaja parce que bilaay parce que doo ah, waaye alaaji déglu ma rek bu nekkul waaja it nañu def li tax mu nekk waaja. na ko nangu nañ ko faji. na ko nangu waaye ki tawata ki tawata nangu ta faju. non non non alaaji fii alaaji ñun ay magum jëmm lañu te léegi-léegi suñuy ndey jàpp ñu xas ñu ba ñu ràpp te duñ génn kër ga waaw wallaay dañ koo war a jël wax ko dëgg te ko ci siraatal mustaqim yóbbu ko ci dëkk yi wala kër tubaab waaye kii ba mu waree faju dafa waay déglu rek déglu rek gis nga yow yow moom noo tase sëy bi ngay wut te sëy bi <laughs> gis nga tës moom bu mënul takk sëy dañ ko fi tase ndaw si dinaa ko lu leer na dem ànd ak waayam ji. déet kumba mii na ànd ak ma kumba. Ah, laaj ma kumba kumba na ànd ak kumbam jàppale ma kumba mi la ngir eh. ma kumba mën a kofalu. kii du ma kumba kii yanik la du ànd ak moom tey du ànd ak moom suba na faju ci. ma kumba il faut kii. en tout daal alaaj daal leen xamal naa la ko sëy daal sëy daal alaaj sëy ah. ah sëy day dëgg dëgg te nag sëy nag kenn mënula la forcer nag xale bu jigéen nag mën nga mën nga leen a forcer ci lenn muñal ndax. adduna nii lay tëddee. dana soppeeku bu ñu la nittali woon Baba Ngom Sedima fi mu jaar. di nga toog muñ. bu ñu la nittalee diw fi mu jaar. di nga toog muñ. Ah. bu ñu la nittalee Cheikh Amar fi mu jaar. yedd la yedd la yedd la ba nga ne ah moo ni sama waa ji kat. ma mm. kumba mii. Mm. bis mën naa dikk moom it mu mel ni ñii ñu ma tudd ak ci teraanga kon naa toog. waaye wàllub lal wa. Ah. waaw maanaam da dafa nekk loo xam ni mënu mënul kii. mënul mm. daa mënul xaar. nga mënul te góor nag daal menuisier di tànn bantu tagar gu dëgër waaw xam nga maa ngi lay nit lii alaaji góor gaak ñetti soxna yi waaw histoire histoire histoire bu somu ndaw ma mu moom daal loolu <laughs> yàlla da ko xéewalee aaw ak ñaareel yoo xam ne uh-huh. jibi danoo taaru mm-hmm. moom paa waaw waaw aaw bi tarkal uh-huh. njool fàttewoon naa la la ca la ca topp it. waxoon nga ko fi. waaw teint marron. Mhm. waaw waaw daal njool te ndaag la it. Mhm. Euh, toogukaayoo it na ko yàlla bindee tarkal. Mhm, rafet loolu. waaw waaye ñetteel wa nag. waaw. waaw moom lañ ni góor gi ndax ba muy takk gone ga. amoon nay bët eh, eh, waaw ndax amoon nay bët ndax ndax kii. Uh-huh. Eh, waaw. mënul daal ci ñaar ñii di dugg ci. waaw waaw kay. waaw kay daa taarul dara. waaw gàtt. ba dee léeg-léeg mm-hmm. së sérieux sutante loolu bu ko woddoo daal jaawale ko daal ak daal sangu sax yenn sax waaw kay waaw kay léegi benn tàkkusaan góor gi toog ci ëtt bi yor course ga ngi naan cak cak waaw ko defee nag ñee dañuy gaaruwaale rek ah ñu rafet ñi. waaw dañ ko tàmm aaw yi. aaw bi dañuy bërët waaye ku ci ne. Hmm. ku ci ne. li la góor gi di woowee si sa biir néeg. boo génnee moom ngay gaar waale seen. Eh. bërët xaaral ma jóg man fasu naaru góor yi. Eh. tu tawa ndoog mbayaar. Eh. te courant du moromu pile. man ci xeese rek. bu jeexee rek jeex lépp lu xees moom sama jàmbaar ji nee na màcc ma. jug jaagar jaagar yi ne cas. ma sa sosal Paaba de. waaw non Paaba koy wax. ah guddi gi góor gi moo naan ko. naaru góor nga. waaw naaru góor nga te lu yàlla bindee tey xees yaa ca man. ko tolloo jamono yaa ko man. waaw ah, foofu mu ne cas siiw ne xaaral ma jóg sangu ji wallaay. Eh. man xeese. Eh. lu njool lu ne. te xees maa ca man sama góor gi ma koy wax. waaw moo tey. waaw dégg nga ñaareel ba ne cas jóg. moom itam. daal forme. Eh. Ah, waaw. li yàlla yet li yàlla yet ci at mi mu juddu yëpp ni ma yette bindee ma ko defee ko kenn sama góor gee ma ko wax eh, ne lu jàggat jàggat ci kër gi rek maa la man maa la dàq bind waaw li cas yoom ne ma ngay rooti papa ngi toog rek de ni fatt waxul ci piliyaan bi taj li ñuy wax sax moom ñu ngi leen xaw a jéppi ndax ñu ngi koy weer benn ñaar ñu ngi def ay affaire yu wujjee ci kër gi te góor gi bëggul lool ñu <laughs> sansal kanam lu gàtt li ñetteel bi xam ne nee nañ a ñaaw euh, ne cas si yoom ne cam ndaama yëgul njool ndool mi yëgul ndaama maa la wax lii de ki mën ca ba mooy jóg góor gi ne ko ah! kon Pape wax na daa daa dagg kurus gi alaay tànk góos da koo tegle woon bëret ah laay moo ne ci dëkk sama naa ko di donc ma jël la ñu lay xas maa ko xam saway <laughs> moo tax ne ay diw lim gis ci diw ba di ko takk. nan oh, <laughs> moo tax ndaw si alaaji man mu rëcc waaj. ngeen naa nit ñi na toog. mais xam nga. ah, ah baax na alaaji góor ga itam. ah, ah. kurus ga <laughs> hmm. te dama te danoon wér mukk mais mujj gi ko. Hmm. jéeg ju taaru juñ. xoolal ndaw sa nag looloo ko manqué. tey soo ko laajee ku nekk ngi wax. traversé ak seeni forme ku la ci woddul rek tarkaal waaye ka gën a ñaaw bi mu ne bërit. Hmm. siif siyoom. Hmm. mu tëdd robinet ba. ne ma yëgul njoor. man mi mën ci lal bi. avant moo yëg ci li ma sama góor gi di bàkkee. man mi mën ci lal wa paa bi dindi ni ko. <coughs> baax na. ana ana ana wér dëgg cëm. ndaw si nañ ata alaay waa ji li tax mu ne du baat ndaw si war naa fajo ji waaye ah ba ah, ah, ah baax na comme que fexe ngeen ba noot ma ba ba ba ba gën ma majoritaire ah naa nangul yàlla ji dogal rek en tout cas day man day d'accord uma ci ndaw si dem hmm. daal nañ jël waa ji jéem dem fajik ah ah moo gën muy dem de fañig fañ fañ fañ fañig fañ non c'est que paa bi paa bi li ko yëngal loo moo doy waar ah ah, ah, ah, ah. sa dong de <laughs> fii di poste bu diis. islam foofu la commencé. Ah, waaw ah, gaa ngi ah, nii baax na baax na. <clears throat> baax na. non baax na <laughs> baax na daw leen foofu si ngeen jàpp daan ko na dem na dem li ca waa ji ñam ba ne ko duma la ba baax na c'est bon baax na ah man de bu ma mu toog waa ji dem faju ji c'est que waa ji war a góorgóorlu faju ji bu dee daf feebar bu dee feebarul tamit jàpp ne feebarul mais lii la man moom moom lii la man attaquant la mais lii la man saison bi day football ba mu jeex du dugal lii la man ñu jéem ma changé poste am yóbbu ko mu joué ji milieu terrain wala loolu day am. Hmm. ay entraîneurs yoo xam ne dañuy changé jour. Hmm. changé yow fi ngay sa poste. <laughs> dëgg la billaay am day am. moom jàpp na ne feebarul nag. Ah, ah, baax na. alaaji alaaji damay laajte benn caabi benn caabi Toyota Prado. jigéen ak moom wala góor. Eh, jigéen sama xarit sama jigéen bi Abi Thiaw. ah Abi. wallaay moom laa fi ñaanaloon atam wala du ma. ok moom wax waaw seet donc ñaanal la kii waaye ba léegi joxagul la. dara la ma joxul. benn xaritam benn xaritam nag bu dëkk waxi naa quartier waxi naa Nimzaat. waaw ci bisu laylatul xadri bi daal. la caabi. Euh, Toyota Toyota Prado daal di. waaw waaw ku ko gis nag woote 78 460 42 77. Ibrahima Ba mi alaaji naan ko léew. léew waa Londres la décédé nag nee nañ corps bi dina ñëw oh tey vingt une heure aéroport levée du corps demain quinze heures mosquée omarienne hmm. la waa ji tudd waaw waaw sarax yi yëpp nag Sacré Cœur trois ci booru kër Mbaye Dieye Faye foofu la ñu koy defee yal na ko yàlla xaree ci àjjana gën a kaw bi jaay seen bi salaam salaam saali woo xule waaw grand plateau bi day temps euh. ah, waaw waaw tarkal waaw ba déwénati rek. déwén. yóbbu leen ko déwén rek yóbbu leen ko déwén rek. sag weer wala. sag weer def leen weer wu ne. def leen weer wu ne benn yoon wala ngeen bàyyi ba koor gi dellu si waat chaque semaine daa jege de. ah, ah baax na. yóbbu leen ko déwén rek. déwén rek ah baax na. nekk leen fii jékki-jékki laa rek de nangam ngolo moom alaaji jékki-jékki la ko yàq. duma ci yegg baax na yàlla dolli jàmm ci biir réew dama am ah. événement buñ ma marraine. toggal marina. c'est vrai wallaay sama benn sama benn sama benn cousine Fatou Fatou euh, Mbandoy Meng mooy def vernissage. missage la. Euh, ci centre culturel Maurice Guèye bu Rufisque le man maay marraine événement bi. le 14 man. bi juin.